mbes mi le critique yéene kaay ne waaye dootul yàkkati de ah. lu tolloo fukki junni ci ay doomu aadama danañu wér alhamdulilahi rabil alamin waaye nag gis nga xeex ak corona jooje waaw institut li mu mën de na li mu mën de il a ak juróom fukki ak juróom ci ay doomu aadama de ñoo wér ci benn semaine alhamdulilah lu tolloo juróom ñaari téeméer ak juróom benn ci ay doomu aadama yoo xam ne amaan nañ jàngoro ja ak juróom benn dee nañ allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sursa ane juróomi doomu aadama dee ñoo ci ñaari fan waaw waaw léegi kay nag ñuy dee mat na kon ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett allahu akbar fanweer ak juróom benn day ñi ngi sowe taas cas grave waaw te jamono jooje la ñuy waaj ubbi kon université yo direct news ak les ko yéene kaay ministre Moustapha Diop day waaw daal ne jébal nag lu tolloog benn million ci ay masque ministère de la santé alhamdulilah dama ne la am na ñaari machine yoo xam ne nag fi mu nekk ni nañuy togg tamit ay masque day te machine bu ci ne mën naa togg benn million ci ay masque ci bëccëg bu ne kilifay jot nañu machine ya termine yéene kaay ne waaye nag am na ay boromi xam-xam yoo xam ne ba ñu duggee lal ba génn ah na ko defee sa kër daal di gilee defee leen ko seeni kër moytu leen dem ngeeg dikk gi te tamit na ngeen a moytu nag maanaam ndaje yi ak dajalooy waaw mel na ni daal loole moo gën a wóor ci jàngoro ji nga xam ne kon maanaam day tasaaroo yéene kaa ngi ne waaye gis nga document boobee waaw lu tolloo fukk ci ay boromi xam-xam day ñoo ko defar ba mu jekk waaw daal di koy jébbal nag loxoog loxo xalif généralu murid yi di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou dama ne la docteur Cheikh Sokhna ak ña mu àndal waaw nee nañu nag léegi daal lépp mi ngi des ci loxol kilifay murid yi ak comité d'organisation bi waaw ñu ñoom lañ cay def Les Échos tout cas artistes yi day ñoom it xam ni kon moom la ñuy dund dama ne la dañoo bind sax ab lettre président Macky Sall laa la wax parce que artistes yi lu toll benn milliard ak genn wàllu kon lañ leen jëbal te ñoom artistes yooyee fukki junni ak ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom jox artiste bu ne ngir ñeenti weer ñeenti weer yoo xam ne kon ñu dara xaalis boobee daal boo ko calculer waaw daanaka artiste bu ne ñaari téeméer ak fukki dërëm ak benn bis bu ne 1000 francs ak 59 Serigne Ousseynou Kane ci évidence yéene kaay waaw nee na coronavirus gii du yàggate dara dana jóge ci adduna bi alhamdulilahi rabbil alamin parce nag doom da nga xam ni kon moo ko war a faj day léegi ñu gis ko Serigne Ousseynou Kane yamu ca ndaxte sëñ bi nee na gis nga nag atu yàlla Macky Sall yi nga xam ni kon moom ko dese waaw wallaay torox tàngee coono loo xam ni kon musiba mbaaba ku ma safara soo xam ne moom la sénégalais nar a dund nag maara taali baka niiro benn dana bari tali ci boppam kon accident yi dana bari ñuy dee yoo xam ne day boo sàgganee président directeur général Senico dana leen génnee seeni kër maara di taali maara di taali dama ne la gis nga ñooñee waaw coowal terrain tam amaat na ci bari ñi day enquête yéene kaay ne Turquie ah commencé nañoo tiitloo askanu bari ñu googee de mar d' Italie waaye waa mairie ba day nee nañu nekkul ne mairie bi moo joxe terrain yi de déedéet waaye terrain yii état bee joxe tey état bi lee terminé yée nekkaa ne ma xale ya ca ndar géej ay ndaw yu nekk géej ndar waaw daaja bool lañ leen doon tere waaye dañoo taxaw defanteeg policier ba mar d' Italie policier bi nga xam ne nag maanaam ko yéene kaay na ay firnde ngi nii yuy wane ne waa ji xaruwul de ay preuve yu leer yu ñu mën a teg loxo ne waa ji wul de ca jamono jooje direct news nee naa xoole leen ma FT mi le waaw ña dugal nag ca benn hôpital kon ca France jëkkëram daal moo ko dóor ba mara day taali laa la wax loolu moom doy na waar di du doy waar ba gën a doy waar li source a wax xale bu jigéen bu ndaw fukki at ak ñeent waaw responsable Benno Bokk Yaakaar bi jëkkëram la tuumaal de na jëkkër da allahu akbar kii nga xam ne yaayam bi mu fi jugee mooy moom xale bi bi mu judee ba am fukki at rek la ko téye ba bis yoon lay tey a xaru yow day diw damaa sa jëkkër jëkkër jëkkat chauffeuru kilifa gu mag la wax muy yegg sama rak ji nga xam ne fukki ak ñeent dong allahu akbar mbir mi nag dama koo bëggoon yóbbu ci kanamu tribunal ba lay waaye sama baay nga xam ne imam la nekk notable mu mag ci benn village moo ne loolee du ca dal yat wa dal na ca kaw magistrat yi de la quotidien ne kaay ne ndimbal ne moom la président Macky Sall ne la la président Macky Sall doon jox magistrat yi waaw daal dina koy téye eh njiital opposition bi kat la yi tànn nañ de te Idrissa Seck la ñu tànn waaw parce Alaaji Malick Gakou Papa Diop Madické Niang Issa Sall Cheikh Agibou Soumaré Khalifa Sall ñoom daal nee nañ Idrissa Seck mooy chef de l'opposition waaye Ousmane Sonko nee na chef de l'opposition daal chef de l'opposition waaye am na yeneen juróom benn leader yoo xam ne ñoom waxuñu waaw waxuñu dee tànnuñu kenn Moussa Tindeye ci Vox Populi waaw nee na président Macky mbirum troisième mandat loolooy dëgg te gis nga question troisième mandat boobee waaw bloqué na réew te tam day néewal doole président de la république Moussa Tine yamu ca dee parce waa ji nee na suñuy daal dañuy arrangé defaraat constitution yi di wax waxeet di dóor seenu askan ba pare nag taxaw fii naan ay atteinte à la démocratie Cheikh Gueye di meeru jëppal derkle ci réew mi waaw nee xam nga di waxtaanee nee na diggante Macky Sall mi le ak Macron Sénégal France waaw France ne ma ngay wuy ji patron cay lilee lu neex France neex na ko ñeng ñeng patiti patata Momar Jong day ne fa la wuuteeg Abdoulaye Wade parce que France ci boppam kon ñoo bëggul woon Sénégal ubbeeku wut ay partenaires yu bees ay Chine réew Golfe ay Inde Turquie France rek li ñu mënul woon a wannaasu ci Abdoulaye Wade daal te mënuñu ko koo baal mooy appel entrant ya nga xam ne Sonatel ca boppam moo ca doon perte waaw benn ñaar ak base armée française bii ay risque daw ndànk dal ndànk rek géré door arrière dama baaraam jéggi saako dellu si door arrière day wóoral mbéte làmb dem naa ca làmb jë l'observateur ne Gris Bordeaux de waaw daal dinay roccee ku nekk ca combat ba Balla Gaye aha waaw waaw Gris Bordeaux ne Gaston Mbengue dinaa ko delloo dix millions te man sax ñaari chèque baare lañ ma joxoon chèque yoo xam ni mënu ma ko woon sax retiré làmb ji moom doy na waar di <laughs>